honorable euh, député Adji Mergane Kanouté maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay bu baax Fatou. am nañu mbégte dalal la ci matinalu mi FM yow euh, vice coordonatrice bu Macky 2012 nga également vice présidente bu jigéen ñi nekk ci benn Bokk Yaakaar ñu door waxtaan wi ak mbas mi Sénégal di dund boobaak léegi am na ñetti weer mbas moomu nag niko ko état bi géré ak yu ca aju ñu bari critiqué nañ ko ci bokk na ci mesure d'assouplissement yi nga xam ni moom la président. mu euh, mujjee jël yow ban jàngat nga def euh, ci gestion boobu. waaw Fatou xanaa di rafetlu rek donc taxawaayu euh, état Sénégal ci li nga xam ne mooy mbas mi. bi mu duggee ci réew mi ba tey ma jéggi sax dugg ci réew mi ba tey mën naa ne bañ koy junj di ko dégg mu nekk ca rural parce que bu ñuy fàttaliku bañ fa amee ay ndongo daara ya fa doon jàngee ba mbas ma amee foofu ñu bëgg a dellu ki nga xam ne mooy njiituma réew muy président Macky dafa jël ay mesures yu am solo yoo xam ne may wane ne moom am na fit li muy def mooy ne xale yi du ñu ñëw donc loolu moo waral amaana tey jii euh, ñu mën a euh, am lim boo xam ne bu toll ci mbas mi tolluwut ak pays européens ak américains yi la ñu am ndax ñoom ñëpp dañu dawoon jëli seen njaboot dellu dellu seen seen i dëkk. le président Macky Sall def nag li nga xam ne la yonent bi waxoon mooy que ne bu la mbas fekkee fenn eh, yaakaar naa ne nga toog fa bu dee fekku la fay it bu fa dem donc bu weesoo tamit bi mbas mi dugg see tamit fii Sénégal mu jël mesure yoo xam ne yu am solo am ay jumtukaay yu am solo yu mu teg yu mel ni li ñuy wooyee mesure sanitaire yi respect distanciation sociale mooy ñuy danante tuuti di rax suñuy loxo di yor ay gel takk suñuy masque donc foofu la commencé mbir mi ba tey tey jii bu demee ba yolomal euh, li nga xam ne mooy mesures yi parce que dafa am ñu muy waxtaanal ñu di ooy ay experts seen xel xarañ lool ci li nga xam ne mooy mbas mi ak feebar ak feebar yu donc ñooñu ñoo koy wax fu mu jëm ak décision bu ci nekk bu mu war a mën a jël bu ngeen seetloo depuis la 11 mais la commencé yolomal li nga xam ne mooy mesure barrière yi kon donc tey bu ñëwee yëkkati li nga xam ne mooy euh, dem dikk bi ci dëkk bi interurbain bi yëkkati également euh, li nga xam ne mooy couvre couvre-feu bi indi ko ci euh, vingt trois heures yóbbu ko ba cinq heures du matin dañ ko war a rafetlu parce que nag yaakaar naa ne Abdoulaye Diouf Sarr ministre wax na ko on a atteint li ñuy wooyee le pic épidémique te it sénégalais yi war na war nañu mat goo xam ne. responsabilité boo xam ne yaakaar nañu ne euh, li nga xam ne mooy mesure barrière yi dinañ ci yegg dinañ ko gën a respecté parce que nag euh, dëgg la euh, buñ la confiné sa kër pendant des mois alors que yow da nga doon liggéey ci lu mel ni secteur informel nga xam ne ndaw ñu lañ ci gën a ràññee ak jigéen ñi dañ lay dañ lay loo ànd lay indi parce que boo tëjoo sa kër te amoo loo lekk amoo loo naan day jur kon mbas mi dafay jur beneen mbas moo xam ne mooy gën a am doole mbas mi ñuy daw loolu moo waral tey président dafa jël kenn ku ci nekk mu teg la say responsabilité mooy nga xam ne war ngaa mën a liggéey dund pour sa bopp mais également tamit sàmm sa wërgu yaram loolu na askanu Sénégal nekk kon donc nag ñu ngi rafetlu taxawaayu président Macky Sall rafetlu également contribution bi nga xam ne mooy euh, jàppale bi nga xam ne askanu Sénégal ñu ngi koy jàppale si si loolu nga xam ne moom la président bëgg muy ndogal bu mu jël ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ŋànk li nga xam ne mooy mbirum mbirum wër gu yaram mm-hmm. gis nañu honorable ne opposition bi nag critiqué nañu bu baax a baax euh, mesure d'assouplissement yooyu yow euh, yooyu les sorties euh, ñeel kuje gi noo ko gisee waaw xam nga opposition mooy waa kuje gi dañu nekk si li ñuy wooyee ñoom seen rôle seen rôle mooy kuje ñoom loolu loolu lañ ko jàppee alors que kuje tamit boo ci nekkee da nga war a indi ay solution da nga indi ay xel ak xalaat luy tax mbir mi faju ndax mbas mi mbas mi ñëpp la fi nekkal damay fay di wax naan mbas mi moo gën a démocrate ci monde bi parce que bawul kenn day dal baadoola dafay dal patron day dal ku yàlla may day dal borom daraja kon tey du mbir mu ñu war a politiquer li ñu waroon def mooy àndandoo nañ ko wanee woon ci premier jour ba leen président dalalee ca palais ba ndax président kat bu ko neexoon jóg rek dem ak cubbal guyam def la ko neex mais dafa oo ñoom ñëpp kenn par kenn yaakaar naa ne image yaa ngi fi gis ngeen président Idrissa Seck ci pale ba gis ngeen président Sonko ci pale bi gis ngeen président mali gàkku gis ngeen président ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay chef de parti lañu duggu dem waxtaan président Macky Sall kon fi ñu xaar ñoom ñëpp mooy ñu booloo joxante loxo parce que mbas mi li ko fi jëlee li ñuy woyee un sursaut national moo ko fi jëlee sursaut boo xam ne kenn ku ci nekk. na la concerné di ci wax lu rafet di ci def lu rafet ci teg nag mooy dimbale état bi mbas mi gaa fay jógee waaye nag buñ buggee jël jamono ji nga xam ne sénégalais yi ñu ngi sonn sonn jaaxle ci wàllum feebar bi nga xam ne moo dugg ci dëkk bi nga ci teg wax yoo xam ne vraiment waxi politicien la yaakaar naa ne loolu euh, du ay responsable euh, homme d'état ñu di xaar feneen fulul ci euh, ci façon boobu noonu Mm-hmm. alors ñu gis tamit honorable ne opposition boobu bi ñu defee loolu dafa màndargaal ne déggoo bi ñu njoxtoon ginnaaw audience euh, yi président accordé woon ñu bari ci ñoom euh, dafa daal di dog yow ban yëg-yëg nga am bi nga gisee ni euh, consensus boobu daal di nay dagg ginnaaw bi opposition bi defee yooyu le sorties waaw consensus bi nag warutoon dagg warutoon dagg euh, moo tax ma ne ñoom opposi opposition bi euh, ñoo waroon gën a am li ñuy wooyee responsabilité responsabilité moo ñu am mat mat taxaw en tant que leader en tant njiit ndax ñoom ni askan wi amee pàcc bu gën a bëri jox kàddu président Macky Sall ba teg ko fi ñoom it mu néew mu bëri askan wi am na pàcc bu ci nekk boo xam ne jox na leen kàddu kon ñoom lañuy ñu waroon def mooy vraiment euh, fexe ba euh, ñu am benn li ñuy woowee euh, àndandoo ci dégg-déggin bi àndandoo ba nga xam ne tey jii seen wareef mooy ñu xeex ànd ak président Macky Sall ba nga xam ne tey mbas mi jóge fi foofu la ñu doon xaare moo tax vraiment ni ma ko ñaawloo la ko askanu Sénégal ñaawloo. donc parce que boo seetloo bi ñu génnee ba tey gisoo benn askan kenn ci sénégalais yi ku génn rafetlul seen taxawaay kon donc ma leen di oo ñoom ñëpp delloo si waat seen xel xam ne lii pandémie la président Macky Sall bu sañoon dugg Sénégal ñoom ñu tamit kenn ku nekk si ñoom bu sañoon bu sañoon dugg Sénégal kon donc ñu joxante loxo comme nañ ko defee woon au début liggéey pour dàq fi li nga xam ne mooy mbas bi. gis nañu soxna yi nga xam ne ñoo bokk ci majorité bi euh, fan yi ñu dajaloo ci ginnaaw euh, madame le ministre de la femme euh, lan ngeen di def comme activité ci cadre femme debout. waaw. bi nag dañu teg benn plateforme. Euh, muy femme debout riposte Covid 19 mooy pour xeex li nga xam ne mooy Covid 19 bi. Euh, ñu dajaloo nag euh, teg suñu plateforme boo xam ne dañ ko yaatal boo gisee jigéeni parlementaire yi ñu ngi ci boo gisee jigéeni société civile bi ñu ngi ci jigéenu opposition bi ñu ngi ci ñu nekk nag ci ginnaaw ki nga xam ne mooy la présidente Awoudia Thiam. moo jiite plateforme bu debout boobu euh, man mii maay secrétaire exécutif plateforme bi donc am ñeneen ñu ci nekk am ay responsabilité muy si parlementaires yi ku mel ni les vice présidentes Ndeye Ly Cissé ku mel ni vice présidente bu euh, yaay man Albis bokk ci Pape euh, Pape Diop. ñu gis tamit ñoo xam ne tey ji yaa Diallo mu ngi ci PS ay ñoom ay Sow Diawara ñooy vice-président assemblée nationale ñu gis également la présidente du COSEF Okey Gassama présidente parité observatoire muy Fatou Kiné gis ci la présidente de la Croix-Rouge Bafouba ak waa ak euh, AFAO ñoom Khady Fall donc nag euh, muy kuréel goo xam ne dafa ëmb ñu bëri am na sax ñoo xam ne c'est des personnalités euh, indépendantes mais des femmes leaders qui dirigent des mouvements je peux l'exemple de la présidente des femmes du port Orly Kandji et d'autres femmes yoo xam ne elles sont présidentes d'associations et de mouvements donc ñu liggéey depuis nag premier cas bi mu manifesté woo fii ci Sénégal muy mars donc depuis début mars la ñu teg plateforme boobu noonu di ci liggéey donc di ut suñuy masque au début c'était des contributions volontaires jënd suñuy masque ñun ñëpp vraiment euh, wàcc si wàcc si marché yi di ko jox jigéen ñi ba UNIFEM ñoo fekk suñu jàppale plateforme des femmes dëggu ba fi mu nekk nii tey mën nañu ne gannaaw bu ñu demee marché bi li nga xam ne mooy Liberté 6 yi les deux marchés Liberté dem nañu marché bi nga xam ne mooy marché Kër Massar dem marché bi tamit bi nga xam ne mooy bu Castors Derklé bërki démb ñu ngi woon marché euh, bu Grand Dakar te fu ñuy demit dañuy jaar ci maire ba parce que nag dëkk boo fay dëkk dugg da ngay jaar ci li nga xam ne mooy maire euh, dëkk ba xooluñ nag maire opposition wala maire majorité donc fépp bu ñu demee rek dañuy waxtaan ak ñoom ñu oo les femmes leaders yi fa nekk ci gox ba ñu wàcc ci marché bi euh, wala ñu remettre ko maire bi avec des délégations yu jógee ci marché bi def sensibilisation sunu mboxamu jigéen ñi jox leen ay masque donc Femme Debout loolu lay liggéey te bu weesoo même Covid bi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla mu jeex nu mu gën a gaawee dañoo ay yeneen mission mooy après Covid mooy post Covid bi mooy que ne bu Covid bu weesoo tout ce qui est stigmatisation mooy nga am feebar bi nga wër ñu lay daw euh, tey jii commencé nañ ko am nañ chance am suñu biir ku nga xam ne mooy la présidente des femmes. Euh, la présidente de la Croix-Rouge mooy Bafou mooy def liggéey bu am solo moom équipe am ñu ñuy wan ñi nga xam ne toujours dañu leen di stigmatiser ñu ànd ak suñuy psychologue ànd ak suñuy expert xool ñu également au-delà de ça jigéen ñi nekkoon ci euh, li nga xam ne mooy euh, secteur informel ñu war leen accompagner bu Covid bi jàllee ak xale yi ndaw ñi donc suñu cible lañu la plateforme Femme Debout muy plateforme bu nationale tey région boo dem di fa fekk ay points focaux tey masques yi ñuy defar dem na ci coins les plus reculés même village yi nga xam ne sax kenn touché wu leen woon tey femme debout yegg na fa joxe fa ay masques kon donc ñun suñu xeex mooy xeex jàngoro bi jóge fi parce que dañ ne kàddu jigéen bu di nekk dafa compter chaque voix de femme compte pour les femmes debout. Mm-hmm. suñu slogan c'est la solidarité dans l'action xam ne jigéen ñoo xam ne amaana seen loxo demu seen ginnaaw am na ndaw ñoo xam ne seen waajur seen loxo demu seen ginnaaw donc ñun Femmes Debout loolu mooy suñu liggéey ci la ñu nekk di ko def am nag partenaire boo xam ne mooy ONU Femmes mu ñu jàppale mais au delà de ONU Femmes nous comptons suñu propre moyen mooy que ñun jigéen ñi bokk ci plateforme bi ñooy jël suñu alam di ko ci def. Mm-hmm. plateforme bi nag mën naa ne du politique c'est une plateforme citoyenne. dëgg la ñun jigéeni majorité présidentielle yi nga xam ne madame Badiane moo ñu jiite la président national moo jiite fam benno benno bokk yaakaar jigéen ñoo ko ñun ci biir mais am na ay femmes parlementaires yu ci nekk opposition ak majorité ak tamit femme parlementaire opposition ak toutes les organisations de la société civile yi nekk fi ci Sénégal ñu ràññee leen bu baax ñu ci plateforme bi di liggéey joxandoo loxo pour vraiment dindi fi mbas mi nga xam ne moo nekk ci réew mi accompagner le président de la république Macky Sall ci li nga xam ne mooy lee mesures sanitaires ñuy sensibiliser di informer di conscientiser sunu mbokk jigéen ñi. Mhm. alors ñu def euh, fi mu ne nag taxaw seetlu bi ca Macky 2012 coalition boobu nga xam ne jamono yële yëngu woon na lool euh, tey euh, naka la def. waaw coalition Macky 2012 nag moom la ñu sant yàlla yaakaar naa ne amoon nañu fi ay crise bu ñuy jàll jàll na bu baax jàll na ñu ngi ci période d'accalmie boo xam ne alhamdulilah donc ñëpp nangu nañ ne tey jii euh, même ñi nga xam ne dañoo bañoon sax nangu nañ tey ne Mamadou Moustapha Diagne booy la coordonnateur tey ki fi nekkoon coordonnateur ñu suspendre ko muy maître Moussa Diop. tey même ñoom àndaloon sax dañ ko wan ginnaaw léegi. Mm. donc il se trouve seul donc moom nangu na léegi ne bu Moustapha Diagne mooy le coordonnateur et c'est extrêmement important mm. maintenant dañu nekk ci période boo xam ne période politique euh, même bu ñuy politique bu citoyen la ñuy def mooy mbirum mbas mi la ñu nekk jéem a fexe ba feebar bi jóge fi jéem a gunge askanu Sénégal gunge ci nan comme naka président Macky Sall waxee di dimbale ci dund. dimbale ci li nga xam ne mooy produit d' entretien détergent yi gunge leen gunge également ci ay gel gunge ci ay masque surtout masque yi ak gel ñun fi nekk Macky 2012 suñu liggéey mooy lu fexe ba sénégalais bu ci nekk yor gel sénégalais bu ci nekk takk masque sénégalais bu ci nekk xam masque bi tamit nu ñu koy takkee donc ci loolu la ñu nekk fi mu nekk nii léegi nag bés bu ñu génn nag li nga xam ne yaakaar nañu ne léegi léegi mu jeex fii Macky 2012 dina continuer na mu doon def coordonnateur am nekk sur le terrain ñu liggéey dañ doon liggéeyee bu am benn coalition boo xam ne ni ñu ko bëggee woon bu yees ak tamit bu am doole amal président Macky Sall njëriñ. kaawu maître Moussa Diop fu ngeen ci toll. waaw moom nag euh, xam nga dañ ko suspendre woon ndax euh, bu ñu suspendre au bout de six mois bureau bi dafa war a toog statuer sa cas. nee naa ñun euh, Macky 2012 kenn amul sañ-sañ dàq kenn am nañ sañ-sañ suspendre ce qu'on a fait moom lañ def ak maître Moussa Diop maintenant euh, bu ñu toogaatee après Covid bi dañuy statuer ndax moom dañ koy bàyyi mu nekk ci bureau bi wala dañ koy bàyyi mu nekk membre simple de la coalition Macky 2012 parce que ñun amul sañ-sañ dàq kenn ci coalition bi kenn moo mën a dàq ci coalition bi mu ci nga xam ne moom coalition bi taxawal coalition yam muy la président Macky Sall. d'accord gis nañu opposition bi tamit waa CRD surtout yóbbu nañu ci yoon euh, lii di euh, décret bi instauré honoraria ci conseil économique social et environnemental ñu jagleel ko Aminata Tall euh, yow noo gisee plainte boobu ak honoraria sax bi nga xam ne ñu bëri jàpp nañu ne amul benn njariñ xëy na mbiru politique donc moo ko lal. xam nga décret boobu du loo xam ne président Macky Sall moo ko defar da ko fi fekk mu jiitu 2012 kon décret boobu noonu Euh, déjà am nañ ñu ko yóbbu nee nañ ca yoon Sénégal ñëpp xam nañ ne dëkk yoon na am na li ñuy wooyee euh, séparation des pouvoirs mooy pouvoir bi nga xam ne mooy judiciaire exécutif ak législatif bi mooy bu assemblée bi président yor ak bi yoon yor kenn bokk sa moom donc bàyyi ko yoon xool la mu cay wax waaye man la ma ca mën a euh, sama xalaat bu tuuti rek mooy man gëm naa ne nit boo jiitee institution kuréel bu am doyel boobu muy conseil économique social environnemental muy assemblée nationale muy li nga xam ne mooy conseil euh, au conseil des collectivités territoriales ñooñu tey bu ñu nekkatut njiit ba tey war nañoo war a am benn statut particulier damay wax ne ñun tey assemblée nationale député bu def ñaari mandat am na li ñuy wooyee indemnité bu ñu fay député bi donc ñoom tamit bu ñu demee à la retraite mooy bu ñu leen wàccee seen présidence yi nga xam ne tey ñoom la ñu yoroon wala ñu am loo xam ne tey jii mooy nekk euh, indemnité lañ koy tuddee mu mu nekk ñoom seen retraite ñoom it parce que nag nit ki tamit doo ko wóolu teg ko fi gën a mu institution wàcce ko bàyyi ko mu dellu ci état boo xam ne tey kat yaakaar naa ne kenn ñaanul yàlla ku nekkoon président yu mel noonu wëlbatiku di tàllal loxo ci biti kon donc man gis naa ne ndogal bu am solo la euh, waaye lépp ci yoon la waaw man légaliste la lu yoon wax kese ci wàllum euh, décret boobu noonu ndax day fekk ci yoon. ci taxawaayam. alors ñu waxaat tuuti ci Covid bi ngir jeexal ku ne xam na ne mbirum xale soxal na la am nga sax ab ONG boo xam ne daf ciy yëngu euh, tey lan ngeen di def euh, au sein de Femmes Debout pour xale yi ak itam li nga xam ci li ministère di yëngu bi ñu denk wàllu njaboot geek tout tànk yi lan la ñu jot a def ngir xale yi. waaw xam nga xale yi sama ONG boobu Protect Children taxawu xale yi bi ñu commencé rek Euh, mën ni kii bi commencé mbas mi commencé dañu alerté woon dañu jóg wax ne taalibe yi ñu ngi si tali ba tey taalibe yi ñu ngi si dëkk yi ba tey que ñi nga xam ne ñoom la président dénk li nga xam ne mooy ndaw ñi tout tànk yi nañu jóg teel a jóg jël matuwaay yi yi yi wax balaa mu dugg si ñoom donc bi ñu defee alerte boobu noonu sant yàlla parce que ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo yor service boobu yu xale yi jóg nañu jóg nañu ñu defoon ay propositions yoo xam ne gis nañu également suñu propositions yi ñu defoon ñun Protect Children ñoom it doxal nañ ko parce que newoon nañu nañu def ay euh, jël ay locaux yoo xam ne dugalagul fi xale yi nga xam ne mënuñoo dellu seen famille yi mënuñu def retour en famille ñu gis ñu taxaw ci loolu. waxoon nañ tamit que nañu jàppale daara yi ci dund ak ci li nga xam ne mooy tout ce qui matériel bu war mën a dem ci seen jumtukaay pour respecter mesures sanitaires. ñu gis loolu tamit def nañu ko kon dañoo rafetlu liggéey boobu nga xam ne tey ñoom def nañu ko plateforme Femme Debout tamit am na yu bëri yoo xam ne ñu ci taxaw jëmale ko ci ndaw ñi euh, la ñu mën suñu doole néew mu bëri euh, dañuy dem ci daara di jàppale ci dund mais également tamit defar ay masque pour xale te xale dafa am masque yoo xam ne pour mag la mais am ay masque yoo xam ne dafa adapté ci xale bi muy masque yoo xam ne ay dañ koy dañ koy ñaw suñu tailleur yi nekk fii Sénégal lañ koy jox pour pour les appuyer aussi jàppale leen comme toogaay bi tamit xaw a métti ñu ñaw ko ñu distribuer ko ci daara yi nga xam ne taalib bu ci nekk boo toogee ba ngoon sa masque mën nga koo dindi furke ba set weex ko bu wow nga takkaat donc loolu daal fam dëbbu donc liggéey gum loolu ci ay en plus que en plus sensibilisation bi ñuy def tamit ci biir daara yi dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yox daara yi ak tamit moo ceerno yi waxtaan également ak taalibe yi waaw daal di daal di def li fa li fa xale wàcc ba tolloog ñoom am un message accessible boo xam ne ñoom dañ koy mën a dégg li ñuy def fi au niveau de Dakar dañ koy def dans tout les région du Sénégal mooy Sénégal yépp tey boo demee femme debout riposte Covid 19 am na fa ay point focaux kenn ku ci nekk fa nga nekk si région ba nga nekk euh, lépp loo xam ne bëgg nga ko jumtukaay ñoom la woo directement suñu direction exécutive fii ci Dakar. ñun ñu jël en charger soit ñu jël ay masques envoyé leen wala ñu ne leen kat gox ba ngeen nekk jëlante dafa nekk ñu defar ay masques pour jigéen ñi defar ay masques pour ndaw ñi ñun ñu yónnee xaalis bi comme ça ñoom ñu mën koo am daal di ko distribuer te na mu waxee et de façon inclusive mooy amuñ du am parparloo jërëjëf honorable Adji Mergane Kanouté député ñu ngi lay gërëm fàttali ni euh, yow yaay vice coordonnatrice bu Macky 2012 nekk itam vice présidente euh, jigéen yu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay sant di la gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi tey. Euh, jërëjëf Fatou maa ngi sant leen tamit bu baax di leen gërëm waa waa réew mi.